ndeysaan dañ def mbakki bal xaadim borom jumaa ji bu mat sëñ ak ñi mu ànd ak ñu organisé di leen nuyu ci turu Cheikh Mouhamadoul Bassir Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Khadre waaye bu nekk porte parole ci xalif général bi muy waaye itam ku yor màggalu Tuuba nekk jëwriñ moo nu yebal fii tey moom ci boppam moo fi bëggoon a teewal boppam waaye danañ ko nangul ne moom liñ koy woo lépp yaakaar naa du fa mën a teew waaye fu teewul fu nit dana seet nit ñoo xam ne ñu wóolu la ñu bokk liggéey Sëriñ Tuubaa bi mu yebal leen sëriñ Alaaji Musa mi way juram wu góor ak way jur si Mbas Abdul Xaadir bokk bay ak ban noonu mu demee ñu demee sëriñ Jiili bu su mu si Abdul Wadul ak man mii nga xam ne ñoo ànd ci délégation sëñ Basiru nag dafa nekk nit koo xam ne pas-pasam ak ngëm-ngëmam lépp daf koo jooyal sëñ Tuubaa mu jàpp ne bépp barab boo xam ne ñu ngi fay tudd sëriñ Touba sax ñu di wax lislaam la fa war lépp moom la war kon nag xal yu tuuti ci at yu néew bu nu taxawalee mel nii woo fi personnalité yu toll nii di ay kilifa lool ci réew bi masha allah kon dafa mel ni yoon wi ñu jaar baax na yàlla leen ci yàlla jàppale barke borom Tuubaa sëñ Bass nag li ngeen koy sargalee ay kilifaam ñoo ko njëkk a sargal ndax li sëñ si di Moxtaar waxoon defe naa fu ab jullit nekk ci àdduna bi dégg ko sëñ mooy samay tànk mooy sama loxo mooy sama làmmiñ te ñetti cër yooyu bu jegee ci nit defe naa nit nekk kon sëñ Bass jëmi doomi sëriñ Tuubaa yi la yoroon te moom la yor ndax ña faatoo tax may wax jëmmi ay kilifaam yi nga xam ne sëti sëriñ Tuubaa la ñu mag yi doon xilaafa bi taxawaay boobu la taxaw kon nag bu ngeen ko sargalee lii nekk na lu rëy ci moom loo xam ne ñun ñii nga xam ne ay ndaw lañ su ne yàlla yóbboo ak jàmm danañ ko leeral bu baax euh, amul sàmm maa ngi lay bu baax loolu de jëfandiku sëriñ Basiru bu bàcc mu xale ñu nuyu itam kilifa yi ma gis yëpp xaw ma seen tur waaye xam naa ay fi toog ma leen di jëfandiku ak soxla yi te di yéem a jàkkaarloo sëñ Bass nag lu mel nii dafay bëgg mu yaatu ndax adduna bi ñi nga xam ne gëmuñu lislaam dañoo jóg di njëkkalaante ak gone yi te adduna moom li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon rek boo amee jigéen ñi am xale sa mission dana ma kon nag bu ngeen di ay xale yu tuuti ci at waaye di ay mukallaf yi ñii ngeen doxale loolu lu rëy la te ñi ngi ñaan itam nii ngeen ko defee Jurbel ci fukki région yi ak ñeent ci Sénégal ngeen fas yéene ko fa organisé ndax loolu lu am solo la dana dundal lislaam te ñi nga xam ne itam dañoo sax buñ gisee lu mel nii seen xol dellu si ci seen yaru mag ñi te mooy diine lislaam yàlla leen yàlla jàppale te defal na ko nga xam ne ñoom du nelaw guddi ak bëccëg ngir kaaraange réew mi sapeur pompier ak autorité yi nga xam ne ay takk der soxna si dégg nañ lii sëñ bi wax léegi amut sàmm sa taxawaay rafet na te ni nga juddoo noonu rek la kon nag ñu ngi lay encouragé ci yoon bi nga jaar yoon bu baax la te sa maam loolu fi bàyyi woon dafa am solo am na ku ko sax léegi ordonnance amoon njëgam sa yaram di metti ku loo ko jëndal rek doo ko fàtte kon nag sa taxawaay rafet na bu nu àggee ak jàmm daañu bi ak réew mi asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñu tàmbalee suñu mag yu baax gi nga xam ne mooy Alaaji Falilu Diop nga xam ne ku ko sargal tey yaa sargal Sénégal. ah ak sangam bu baax bee di Sidi Gise Diop. ku nekk ci Diourbel fierté la ci ñoom ah ci li nga xam ne ñoom ñoo dëkk Bawol taxaw. di meeru Bambey di nit bu baax. nga xam ne ñu tànn ko ci jàngalekat yar ko takkal ko ndombo tànk bu rëy nga xam ne mooy jël prix bi Moussa Ndiaye ñu bu baax a baax lu bëgg ñu tànn ko ku bu baax nga xam ne tey jii ku ko def ah sargal ko yaa sargal jigéen ñëpp yaa sargal njaari waaye sar yaa sargal Bawol ak conseil ki ko représenté di Moussa Kassé nga ne tey surtout maam Thierno Birame di soxna maam Diarra mu ngi nii toog Bawol sargal nga xale waaye di gis nag sama mag à ah, présent. ñu ngi lay gërëm bu baax a baax merci beaucoup. kon ji merci beaucoup ma bëgg ngeen tàcc sama papa bu baax. monsieur Bamba wan mi ngi noonu te dugg fi. alaaji Bamba. alaaji baara wax na dëgg ci région bi euh, waaye ànd ci ki nga xam ne kii moom la fi nekkal représenté bu dignement muy le ministre Birima Mangara asalaamaaleykum euh, téléspectateurs Télé Futurs Médias euh, tey nag sëñ Safa Fa tey moo leen teewal fii ci Diourbel ci mouvement servir la Bawal bu leen déggee servir la Bawal nag yàgg nañ koo def annuel la laa mën a wax parce que nee naa nag chaque année ñu tànn ci ay nitu bawal ñi di leen sargal ci loo xam ne lu dëgg la te lu jaadu la tey nag ma ñëwoon fii ci bawal ànd ceeg waa Dakar Door Pa di jëbub si yaa ma gën a la ko wax ñaari yoon ba tax na nag tey dama naan la bawal dina mel ni suppa lañ san ba bañ bi métti ak sista fa damay daal di jàll ci biir ndax gis nga li ci ginnaaw ñu xool tey mouvement servile la bawal lan leen leen di indil ci ay yëf-yëfam asalaamaaleykum téléspectateur Télé Futurs Médias ah, tey nag seen émission Dakar ne dort pas ñoo la ñëwaloon fii tey ah, ci Diourbel ah, ci mouvement servir la Bawal servir la Bawal nag boo ko déggee mooy sargal waa Bawal sargal ñi nga xam ne ñoo jara sargal te tey nag nee naa la fii na mel ni bëñ bi métti mbaa supp lañ set Boubacar lii laa lay waxal man fafa ndax nee naa la waa Bawal nan namuñu daraay sañse ba tax na dañuy daawu ndànk ak sama caméra bi nga xam ne namul daraay jongoma ak jongoma mineur ñu daay daagu ndànk rek daal di xool li ci biir xool tey waa Bawal lan la ñu indi ak ak ñan lan ñuy sargal ci fulla ak fayda let's go. xam ngeen ci dañoo am gàmmu bu mag ca Samba. maa ngi gis xale bu baax. délégation Khady Ibrahima Fall ki ko jiitee moom la député maire honorable député ñëpp d'accord waaye ñoo ko xam sax doomu neer ñu bokk. di sant Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Noreyni di sant waa Njaareem euh, di euh, sant tamit euh, président mouvement Sëriñ Bawol bi nga xamante ne nii sama rakk Mamoun moo ko organisé jiite ko ah bi nag yónni ma ma teewal ko ah, ah, mag ci maam ma ñëw en tant que Diourbel Ouest ma ñëw fekkee bés bi jëmal Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ànd ak taalibe ak magum taalibe yi nga xamante ne nii ay lañ. tey jii def ko vraiment pour euh, donner une opportunité à toute la région de Diourbel ñu am lu ne mel nii biir Mamour organisé je vous remercie s'il vous plaît monsieur Aliou loolu moo tax ñu teew waaw gis ak ñëpp këram ñëpp nag. waaw kooku kooku jëm jooju man peut être dinaa koy wax euh, ndaxte ñëpp xam nañ ko ci ñi liggéeyal Serigne Touba doon soldaaru Serigne Touba ñu koy woowee général de Balla ñëpp xam nañ ko ci ñi ñëpp xam nañ jom ji nekk ci moom ñëpp xam nañ jeunes yi nga euh, xamante ne bii dañuy jël soppi leen euh, teg woon ci yoonu dëng ñu jël leen récupéré leen ba Cheikh Moussa Mbacké Nourou di présenté ci réew mi ndaxte mën naa ne projet bi mu nekk côté social bi social ñëpp mi ngi fi mi ngi fi teewe lu ko waay woo mu wuyu la lu ko waay woo euh, mu teew ci euh, nekkal fi jeunesse bi nekkal fi ñëpp kon kooku bu ñu ko sargalee rek dañ ko war a sargal. waaw di leen fàttali rek nag kii mooy euh, Falilou Diop moom tey. waaw en fait euh, c'est vrai que ñi choisir sargal choisir ma ci santé juumuñu. J'ai terminé ma carrière comme inspecteur général d'État, mais j'ai fait 34 ans au ministère de la Santé à différents niveaux, dont directeur d'hôpital pendant 17 ans. donc euh, sant laa ciy def parce que nag euh, bu fekkente ne dëgg dëkk ci benn gox ba waa nekk ci gox bi xëy ni dañ lay sargal mais euh, doomu lu dul kontaan ci seen aussi kontaan ensuite mu nekk peut-être loo xam ni day ñaax ñi ci des également pour éventuellement que nga mun a servir d'exemple voilà. waa papa bu loolu weesoo rek dama la doon laaj. ah non moi je, pense que c'est une excellente chose lu rafet la parce que nag euh, de temps en temps ñu choisir ñoo xam ne ci dëkk bi lañ ci ci dëkk bi lañ dëkk am luñ fi tekki nga sargal leen devant la population mais je pense que lu am importance la. moi j'ai été très content quand j'ai vu que ay xale ñoo xam ne ñi peut-être man mun naa leen jur ñoom ñoo jël initiative boobu je pense que c'est une excellente initiative et puis qu'à développer. donner naissance à des dignes fils à l'image du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul le pharaon noir Cheikh Anta Diop le Limanel Fall pour ne citer que cela mesdames et messieurs honorables invités il y a de cela 4 ans, des jeunes soucieux de l'avenir de leur localité ont eu l'idée de mettre en place une cérémonie d'une envergure raisonnable. Un grand rendez-vous d'Ibawal qui s'inscrivait dans la dynamique de décorer les fils d'Ibawal les plus marquants de l'année qui ont su honorer, défendre et représenter dignement le Bawal à travers leurs activités. Nous voici à notre quatrième édition Et aujourd'hui, nous sommes encore une fois comblés de joie d'avoir réussi à réunir les fils d'Ibawal pour une union sacrée afin de travailler mais dans la main pour une Diourbel meilleure. Chers récipiendaires, votre générosité et votre amour pour le, pour font aujourd'hui l'objet de tous les débats de la population autochtone. C'est d'ailleurs ce qui nous a servi aujourd'hui de leitmotiv pour que nous vous choisissions comme modèle de la vie dans vos différents de travail. C'est récipiendaire. C'est le, fruit, de vos actions qui vous a fallu aujourd'hui cet honneur que doit rêver tout bon Bawal Bawal. Se faire honorer devant la représentativité administrative et politique, sa famille, les populations du Le Baol faut-il le rappeler, n'est pas seulement de sol, mais de cœur et de principe. Le Baol est digne, il faut lui le reconnaître. C'est récipiendaire. Vous avez honoré toute la région, prodigué une réelle fierté, suscité une foi, un espoir. C'est pourquoi aujourd'hui, Le mouvement Se Servir Baol tient à vous féliciter en guise de reconnaissance. Ainsi, nous vous prions de continuer à accéder dans vos différents domaines car notre raison a besoin des gens dynamiques comme vous pour décoller. Je ne saurais jamais terminer sans pour autant remercier notre cher parrain, M. Dan directeur général de 3 FRT, et la marraine Ndey Diop Kamara, la lionne du Bawol, partie de développement. Vous le faites très Nos remerciements à l'encontre des bonnes volontés, des autorités, des sponsors, des partenaires qui ont contribué sous quelque forme pour en arriver à une telle consécration. Soyez rassurés car nous ne ménageons aucun pour lever deux défis essentiels qui se pour garantir à notre région un avenir certain dans un monde de compétition la qualité et l'excellence dans l'intérêt de la nation. Merci d'avoir compris que le plus grand des hommes à son bercail. Je vous remercie. Que la fête soit belle. Je vous remercie. mi ngi fépp ci àdduna Amérique Angleterre partout dans le monde Bawol Bawol moo fa sut moo fa mën tey ñu ni nag dañuy suqali Bawol sargal Bawol xool ñi nga gën a xamante ni lañ gën a ràññee ci secteur bi ñu nekk ñu sargal leen Je donne un exemple. Monsieur Hassan Ndiaye, lauréat concours national, le grand prix du chef de l'État, Monsieur Macky Sall. Aujourd'hui, il est là parmi nous ce soir. Je vous dis aussi un exemple, Monsieur Ibrahim Diallo dit le un bon maître Donc, kooku tamit ñu jël ko tey di ko sargal. ma ñëw ci remerciement yi ñi nga xamante ni nag chaque jour su jëfee dañuy jàppale muy metti ñu ñuy jàppale muy dëgër ñuy jàppale. lii ku ko xool xam ne lu yombut lu yombut de on naa dépensé des millions pour sax lii ñuy def nag pour dëkk bi lañ koy defal kon na ci waa dëkk bi jàpp na ci waa dëkk bi jàpp liñ fun bëgg a yóbbu Diourbel ñu yóbbu ko fi yéen ñi nag man gëm naa ni pare ngeen pour ñu ànd ak yéen yóbbu Diourbel fu sori damay commencer rek remercier par monsieur Pape Amadou Fall directeur de publication La Gazette dañoo ànd ak moom Dakar mu ñuy jàppale bu baax a baax ñuy jàppale bu baax a baax di sant koo xamante nii nag mën naa ni moom ma bëggal boppam nit di am ay problème di ma ko woo di ma ko wax naan ma maamun ni maamun naa du ma xalaat muy monsieur Pa Abou Camara dama lay sant ci mboolam mi yëpp toog Pa Abou yaa ma jàpp yaa ma bëggal sa bopp kon ci mbooloo mi toogee dinaa la ko wax di sant nag monsieur Bamba Wan jege na ministre bi moo tax mu jàppale ñu ba ministre ba ministre bi teg ci loxoom ci bis bi kon monsieur Bamba Wane bu mbooloo mi toogee dinaa la. waaye ci loolu tamit monsieur Thierno Bocoum bi doomu Diourbel ñëw ci bis bi ak monsieur le maire Gana Mbaye ñëw ci bis bi kon ñu monsieur Gana tey boo bàyyee nga feebar jóge ba dakaar ñëw fii tey kon ñu ngi lay sant baax di la gërëm waaye nag du ma fàtte tamit suñu suñu lépp muy Maam Jaara ñu ne Maam Jaara rek suñu xel day dem ci sëñ Modou Kara jox na bis bi gëdd bi. te ci dooleem def ci lépp ba sëñ Modou Kara def délégation bu toll nii kon bis bi kat tuddaloo ko waaye nag du ma fàtte ki nga xamante dafa jóge ba Allemagne ki nga xam. li ma tax a teew mooy nga nekk doomu Bawol yoru benn mouvement bu tudd Diourbel euh, en marche MDEM euh, ñu investir woon ma liste euh, élection législative yi passé mu représenté woon la coalition Ndaw Askan Wi ma jël troisième dans la commune et dans le département. ma nekk un digne fils de Baol lépp loo xam ni mi ngi yëngatu Diourbel sama loxo nga ci lépp loo xam ni bu développement Diourbel sama loxo nga ci kon waa Ndiaré buñ bu ñu wootee dama war a teew looloo tawal en teewaay bis bi. waaw bu loolu weesoo euh, waa waa ah, tàmm la tàmm la euh, servir la Baol tàmm la def la invité d'honneur lan moo. fii kenn amu fi lu méritéwul da ngay def dara bu deful dara doo am dara. je pense que dañuy wone suñu détermination envers le développement de Diourbel dañuy wone suñu détermination dañuy wone suñu gëm-gëm wone suñu bëgg-bëgg Bawol lu ñu am rek Bawol moo ñëw ko jaral loolu moo tax rek suñu détermination la ñuy fayee moo tax ñu def ñu invité motiver pour ba ëllëgee rek lépp loo xam ni lu soxal Bawol la lu koy soxale dinañ ci a nekk daal. Oh, oh. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax monsieur Daouda Thiam. merci c'est moi qui vous remercie. sama bi ma déggee la ñuy wax cursus su Mahmoud mu jaar dama ci fier muy xale bu yaru di ñëw sama bureau di ma laaj ma koy wax xam naa ni bala muy def dara foo mu laaj ñuy wax ko. kon ñoom bu mu demee ba def ko tey muy quatrième édition doom boole yëpp daje feet bi neex nii comme ça loolu wax dëgg yàlla suñu xol dafa set suñu ko gën a xumbal dëkk bi waaw. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax monsieur. mu nekk may dem. waaw loolu ba tey rek benn la mais tey nan nga gisee seen initiative bi. boo initiative bi yàgg na parce que bokk naa ci gars yi ko jëlaloon di ko tëraloon avant yàgg na quoi boobu mun naa ne boobu bi mooy quatrième édition bi bokkoon naa ci après ma voyagé ñu saisir pas bi xam nga ma ne ko c'est une bonne initiative ay dañuy servir les fils nga xam ne bokk na ci gars yi gën a def daal ñi nga xam ne dañuy dañuy gën a jëf li nga xam ne mooy Baol ñu gën a remarqué wu ci année bi mu yàlla def nag ñu boole ci pas bi ñu wax ma ko di ma copain suma yaay côté bi mu àndee ak bàyyam Cheikh Diop Ndar yàlla julli ci Seydina Mohamed sang-sang yi sama teewaay tey fii mooy daaw man maa doonoon femme de l'année ren tey jii yàlla def ñu def ma marraine du jour. kon mooy sama teewaay fii parce que xale yi danoo am am danoo doon xale yu am ambitieux yu baax yu yaru yu bëgg bawal yu xam li ñuy def parce que depuis quinze ñu ngi koy def parce que boo xoolee li nga xam ne ñi am nan ambitieux nan am na lu ñu bëgg te ñu ngi ci kaw pour développer Diourbel. kon daal pare nga pour jàppale xale yi mouvement servir la bawal. incha allah chaque fois incha allah chaque jour guddeeg bëccëg maa ngi seen ginnaaw di leen jàppale ci kàttanu yàlla. asalaamaaleykum maa ngi nuyu toute la population diourbelloise mouvement servir Bawol avant tout dama leen di remercier parce que dañ ma choisir comme femme de l'année Diourbel bëri na ñun ko mën a def mais dama ci kontaan vraiment di leen ñaanal tam ci initiative bu rafet bi ne ñu jël di leen ñaanal tam yàlla bàyyi leen ak seen sago ñu yeggaleeg jàmm ak salaam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waa di ñaan ñu góor góorlu ndax man royukaay laa ci Diourbel Diourbel xam nañ ma bu baax parce que transport laay def jël naa ci xale yi bari ànd ak ñoom liggéey mais li may wax Diourbel moom toujours ma ñu àndandoo nekk benn bokk lépp pour Diourbel jëm ci kanam. ñu ngi lay bu baax a baax. Eh, man nañuy wax Mouride Mbaye waaw. lan moo waraloon sa teewaay fii tey. waaw parce que mes anciens élèves là ñoo nii dañ may sargal. Voilà, ils m'ont choisi comme euh, le meilleur homme, le meilleur acteur culturel de cette année. moo tax euh, ils m'ont informé pour ma ñëw que ñi ñi sargal ma. tey boo leen doon conseillé ban conseil nga leen a. boo leen doon conseillé lan nga leen di dëggal ak ni ñu takkoo pour jàppale Bawal. ah voilà li ma leen di conseillé je crois que kooku ñoom même xam nañ ko parce que ils ont toujours collaboré avec moi surtout le président. parce que ñoom c'est des anciens étudiants yàlla def na depuis 91 maay jiite les délégations la des étudiants pour les amicales et autres bon yàlla def na aussi ñoom ñu ci ëpp ñu ngi liggéey léegi mais li ma leen wax lu nekk nee naa leen euh, la la la fête là pour mu am euh, dayo dëgg bi mu war a am il faut que autorité dëkk bi jàpp ci parce que c'est vraiment dommage jàppale wuñu xale ya ça je le dis haut et leen dañ leen di promètre ba aujourd'hui même le président est venu chez moi ni ma am ay autorités yoo xam ne ils sont de Diourbel jàngil li si Amadou Bamba ñu jox leen ay lettres ñu teg ba au moment naan leen après c'est pas sérieux ils ont dépensé des millions. amul mais nan ñaan yàlla beneen yoon ñëw jàppale leen. nan nga gisee initiative servir la Baol. bon initiative bu baax la euh, dañ leen di ñaanal. pour yàlla yokk seen wërsëg yàlla jàppale leen. Euh, man lan nommé entreprise euh, di ñu tànn ci année bi di ma ci sargal euh, ma ci sant yàlla bu baax a baax di leen ci sant ñoom ñi ma ko nommé di ci sant waa jur Jurbel ndax ñoo tax ma doon ko waaw. Mm-hmm. waaw bu loolu weesoo tey euh, ñoom ñi nga xam ne ay xale lañu doon ay ndaw di jàppale seen dëkk nan nga lan nga leen di wax ak lan nga leen di ñaax tey. waaw kontaan ci ñoom lool gis ne euh, ñu ngi ci solution pour développement Diourbel ndax Diourbel mu ngi ci tuuti ay jafe-jafe mu jaaxal nu ñu koy jooy fu mu toll suñu gisee ñu ci taxaw dañuy sant yàlla nekk ci seen ginnaaw. jéem a jàpp mu dëgër rek ndax Diourbel dem ci kanam incha allah jërëjëf jërëjëf. di sunu séeri maam booy maam booy Diaw di rakk sama soxna Kiné Diaw madame Kayta muy nit ku baax ku yaatu ku yaru bëgg ay bokkam moo tax bis bi jomb ko daal ci njaareem ci loolu lañ ñëwoon tey. lan moo waral euh, tey nan nga gisee tey mouvement servir la Bawal ak seen liggéey bi am doole bu ñuy def ngir jàppale seen dëkk. waaw Set Withla Baol xam nga man dama dama ci bëgg kontaan ndax euh, boo nekkee ci dëkk di seetlu jàmbaar yi ci biir dëkk bi boo waral euh, nga taxawal lu mel nii loolu dafa am solo ndax day tax nit ki gën a góorgóorlu te vraiment ni ñu ko doon compo ni ñu composé tey sëñ Bass Abdou Khadir Moustapha Cissé Lo Mame Boye Diop ak et cetera ma ànd ak man ñu ngi dina Sargal Baol nekk ci quatrième édition. Euh, yàlla dogal aussi ci première édition bi jamono yo daf fekkoon ma nekk adjoint au maire euh, ma bokkoon ci ñi sargaloon euh, may ànd ak ñoom den accompagner ba reen aussi ma bokk ci invité d'honneur yi mu am beneen motivation aussi bu ma fi indi parce que xëy na ren bokkuma ci récipiendaire yi la première année bokkoon naa ci ci ñi nga xamante ni ñoom lañ seetloon ci wàllu politique ci région bi am nañ ci taxawaay mais ren aussi ma ñëw ànd aussi ak sama cousin Assane nekk sama cousin nekk aussi sama goro parce que moom ak sama soxna ñoo bokk ndey ak baay donc mu nekk grand prix du chef de l'État pour l'enseignement en 2017 donc ñu ñëw ànd ak moom accompagner ko vraiment sargal ko parce que fierté la exemple la boo xamante war nañ ko servir à tout la jeunesse de Diourbel pour ñu roy ci moom parce que xaj na bëri na ñoo xamante ni liñ gis tey ci Assane mooy grand prix chef de l'État boobu mais au-delà de ce grand prix dafa am benn parcours boo xam ne dafa jaar parcours boobu la ñu war a jàngal xare yi pour ñu xam ne nit mën na commencer de rien pour aboutir à quelque chose donc loolu lañ ci mën a jaay en tout cas ñu ngi remercier bu baax organisateurs yi di leen encourager di leen wax ne aussi nous serons toujours près à être à leur côté pour les soutenir parce que cause bi ñuy défendre cause Bawol suñu cause la kon war nañ ci ànd ak ñoom défendre Bawol pour que mu mën ko hisser au même niveau que les régions les plus développées du Sénégal. maanaam jàmm baax waa gis tey li fi jot a xew fii ci Diourbel ak sargal bi ni mu demee bés bi nag jeex na tey tey ban gis ci am ci Diourbel fii. waaw dama kontaan fa xam nga boo dee jeune nekk ci dëkk bi xam nga ay jeune am benn euh, amour ak engagement tout simplement pour xool couleur dëkk bi lu ko jëmal ci kanam en tant que nga gëm sa bopp rek moo waral lii mais nag yóbbu doon na ah, gaa gëm rek moo tax affaire nag yow yaay président bi dëgg neexul yan initiative nga am ñan ñooy sa ba tax nga liggéey lii waaw xam nga rek am yar am teggin ba su ma wóor nit ñi ñu saal bi tey daa dell macha saal bi fees na dell ba lépp loolu liggéey lu ma liggéey la moo waral lii nii. kon ñu ngi lay jaajëfal nooy tàggatoowee. xanaa di remercier sama ñu baax ñi ñu baax yow di la nga jógee ba Dakar ak waa télé yu TFM 2S di remercier Mara sama papa Youssou Ndour di ko di remercier waa Diourbel ah la wax ni kontaan naa leen lépp lu may def rek naa gën a yokk ndax ñoom. waaw ba tey nag gars yi nee naa la tey Dakar na door pas du ay caaxaan ndax la ma ko waxee woon ca début rek fii mel ne supp lañ set waa dëgg neexul tey xale yu Diourbel defati nañu mbir xale yu Diourbel defati nan daan def li seen maag yi leen seen maam yi bàyyil def nañ ko Boubacar Diallo man tey papa maa wane lépp te bis boo ko xoolee di nga Seck du ku ndaw du ku ndaw ba tax na tey li fi dajale fii fees dell ñëpp wuy si mu sargal ñi mu war a sargal bégal ñi mu war a ay mbokkam ay waajuram teew yaakaar naa mouvement Servir la Baol doo nga ko mën te ñi ngi def le tout pour jàppale seen réew kon nag euh, Boubacar Diallo tey lii rek laa la indiloon sama sañse nag dëgg neexul Moussa Sali Couture borom Pikine moo fi jaar lii rek laa amoon ci ma lay wax di la wax nag let's go ci beneen